xam nga Ousmane Sonko a un seul péché mooy d'avoir aimé le Sénégal gis nga réew mi tey képp ku bëgg réew mi di wax ngir lu joxal lu soxal réew mi di wax ngir lu jëmale kanam réew mi tu deviens un adversaire mais képp ku bëgg buur bi di wax ngir lu soxal buur bi di wax ngir lu neex buur bi di ko tagg tu es un enfant de la royauté un enfant de la cour du roi et dañu lay traiter comme un enfant de la cour du roi et les exemples sont là les video son la xam nga yéen presse bi dama leen di gërëm leen sant parce que yéen a ñuy wan li nga xam ne nit ñaa ngi koy def moo tax gàcce ngaalaama yéen à ce droit là à l' information qu'on a ñu ngi koy jox. bi ci mujj barke démb rek bi ci mujj barke démb rek. gis ngeen ko ci procès bi ñëpp di ko gis donc le président Ousmane Sonko. au la du chef de l'opposition même il est devenu président la République avant son heure mm. pourquoi parce que ki nga xam ne bokkul bokkul warul bokk moom ci boppam moo ko wax dans le Sénégal au cœur à la cinquante 151 moom moo ñaanoon Sénégalais yi pour ñu nommer ko pour so second et dernier mandat kon moom pare na hmm. moom ci boppam moo ne woon nit ñi mën nañ koo xool fépp ba mu des affaire troisième candidature ndax loolu xalaatu ko te ñaanu ko yàlla ci boppam moo ne là le nombre de mandats est réglé par la constitution de 2001 c'est les années qui posent problème et une une révision exceptionnelle en 2016 boo xam ne réglé na les années donc c'est cinq ans maintenant et nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs kon loolu jeex kon moom bokkul kon yow soo bokkul kan moo war a bokk fu mu toll nii ku gën a nekk en pôle position le président Ousmane Sonko gisuma ko loo ko bañ bañ rek wax na li nga xam ne moo am tey Sénégal bu ñu demoon élection tey tey tey tey. kenn mënut a gagner le président Ousmane Sonko donc loolu dañuy ñaan yàlla yàlla mottali ko parce que en vingt 2024 jàpp nañ ne loolu incha allahu rabi dina am na muy amee nag ku nekk ak na nga koy gisee ak ku nekk yan obstacle ngay teg ne lii dina am wala du am ñun bu ñu neexee ñu taxaw ne lii de dañuy bu soobee yàlla dinañ fexe mu am waa kër ñàkk jàmm bu leen neexee ñoom tam ñu taxaw ne lii moom du am. ñun ñooy waa kër ñàkk jàmm. gis ngeen leen. mooy ñi ah, nga xam ne lu nekk li ñuy traité Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko. ñan la rek ah xaw ma rek ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bi lu leen neex ñu def lu leen neex ñu wax donc loolu ñoom bu leen neex ñu taxaw ne lii moom du am tout sauf ñoom la ñu tout sauf Ousmane Sonko ñun ñu ne Ousmane Sonko ou rien kon vous avez vu. jàmmaarloo bi day métti c'est le choc des ambi des ambitions